Nous sommes Sénégal nous sommes Sénégal n'avait même pas 30 000 abonnés C'est ce que bi mooy da ngay veux fekk dara nga ak euh, ba biñ presque 200.000 abonnés veux mais chaque vie est une expérience. c'est vrai c'est man page mu ngi woon abonnés tey Sen page mu ngi ci trois abonnés donc visibilité ñu dit le coow chaque jour amul solo fexeel ba pas boo teg mu nekk des pas sûrs Révolutionner nañu làmb à travers Dakaractu ak ay direct mais nag Dakaractu bokkul ak site bari façon bi ñuy liggéey ak façon site bi mu doon Dakar Dakaractu am na lu bëri sax loo ko fa dugal diwa ngi ne le shopping de nangam. Diwanguiné voyez le maire de bain ak kii voilà le cité Ngos avec les saints. Ça ñoo ko fa dugal mooy dafa am ben site bu am benn ligne éditoriale bu sûr daanaka ci boo xoolee la ko fay la fay xumb sax mën naa ne man maa ko fay indi ak people ak yenn relation mais ku nekk war ngaa xam que en qualité logistique Ben site mënu ko ci qualité ressources Ben benn site mënu ko ci li mu disposé ci ci ci ci ak ba fi mu mën a yegg Dakar mooy seul site boo xam ne lu am ci réew mi bu doomi Sénégal doon génn dem ba Chine dem ba Japon dem ba Australie dem ba Suède dem ba Norvège dañ leen di topp te loolu yombul donc contexte bi ñun nag fële ay guerrier la ñu woon biñ fay juy départ man Birajo El Malick ñoo fa nekkoon di di soox mais yéegal nañ ko fi ñu ko bëgg a yéegal ay nit yu mën a liggéey nekk fa nag ah. Sénégal tey bëgg see poigne bi am ñun loolu mën ñu ko fa tey ko fa té ñom mais am nañu ko de flambeau bi ba Sénégal tay site Sénégal ne ñaar loolu loolu moy ñun loolu lañ ci bëgg loolu non mais info info c'est autre chose dama wax Babacar Ndiaye Soda chaque jour da nga sok Babacar bi mu indi forme forme du web ay plateau en wolof si vous ko commencé chronique yi ngeen def côté people vous êtes présent partout man dem naa Touba Diourbel fekk wa waa Infos Rewmi donc lolu moy liggéey tay sen page YouTube am na site du ponkal yu beur yo xamante que sen page bi leen raw est-ce xam ngeen lolu ay site yo xam ñu ngi leen di dégg fi li Infos Rewmi disposé abonné amuñu ko donc mais lepp amul secret ah secret bi rek moy liggéey liggéey rek la ko liggéey seul le travail qui paie